gaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi suivre Rama Sport ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo ñu continuer rek ci arbitre bi nga xam ne moo doon arbitre mag Sénégal ak Cameroun ak Côte d'Ivoire coow laa ngay wéy ci moom ba léegi ñu bari nag léegi jóge nañ ci dañ ko koromp jóge nañ ci euh, dafa juum waaye ñu ngi ci niveau dafa munta arbitre fekkee nag loolu mooy li am kon nag dëgg dëgg affaire bi ci kaaf lay dellu ñoom ñi xool arbitre yi nga xam ne seen niveau dafa ñu fi indi ñu koy indi ci coupe d'Afrique ndax coupe d'Afrique ñëkku lu ndaw normalement war nga mën a indi arbit au niveau comme arbitre yi ñuy tànn fii ci Afrique ñu dem mondial ñu néew ñu bari tànnal ñooña nga ubbi say centre nag formation arbitre ci réew bu nekk ñoo ni formé ah ci suuf ba ci kaw ñu xam lépp luy règlement xam lépp lu ñu tiire xam lépp lu ñuy def nga xam ne balaa benn coupe d'Afrique di ñëwaat muy deux mille vingt sept deux mille vingt cinq sax ñooñu ngay fon nañu pare waaye deux vingt sept nga xool ñoo ci section ñu commencé di la arbitral boo ko defee affaire bi gën a nekk affaire professionnelle bu ko defee ñi nga fon waat fii ñooy ah, Sénégal bu amoon dix arbitre wala vingt yi ñoo koy arbitre nga am ko Afrique du Sud am ko réew africain yëpp bu ko defee loolu day gën a yëkkati nga xam ne mooy football Afrique mais nag li ñu gis jaaxal nañu jaaxal nañu lool